suñu nuyoo di ko tàmbalee ci ki nga xam ni mooy Serigne Sam Serigne Sam mooy moom mu taxawal fi képp boo xam ni mu leen nga aju ci Serigne Touba mu Cheikh mu taxaw di deral nuyoo suñu Serigne bopp ñun ñuy xalifa maam Cheikh Mbaye di Serigne Moustapha Mbaye di teg ci nuyoo bi képp koo xam ne nekk nga ci boppu tarixa moo xam nga nekk tijaan wala murit wala xaadir wala laayeen wala chadiri ak boobu ak afiyat ak lu ci mën doon di beral nuyoo dama koy tàmbalee ci waa quartier yi di leen baalu xaq ndax taxawaayu diine la waaye am na si ñoo xam ne bokkul ci suñu diine yi te ku ne xam na ne xaq am na ci diggante kii jullit ak ku dul jullit waaye seen taxawaay bu rafet def mbir mi di seen mbir tax na ñu leen di sargal di xaq di teg ci nuyoo bi waa daayira bi ndax tey jii am nañu yaqiin ci képp koo xam ne teew nga sa fay ëllëg wala sa añ suñ la ko gaaraloon léegi dootoo fi jóge mukk ko di nuyu képp koo xam ne soo ko liseeloon ci ci lislaam yëpp nag ndax yéene ak yitte bi ci am teew fi am na li naan mention spéciale bu ñuy defal ñi nga xam ne ñoo yàgg di ànd ak sëñ Saam di taalibe yu mag yi di ci lim sëñ Ablaye Diop ñu ngi nii teew sëñ Papa Diouf ñu ngi nii teew sëñ Omar Thiam ñu ngi woon ak ñeneen sëñ Papa Sall ak ñeneen tàmbalee suñu waxtaan rek ñu lëkkale li fi sëriñ Ousmane Fall suñu waxtaan sëñ Abdoulaye Diop fettali ko sëñ Moustapha Mbaye sànni ci kàddu damay xool nu mu koy attee ci jamono ji ndax yàlla ko wax ci alxuraan wa kazaalika ja'alnaa li kulli nabiyyin aduwwan shayaatina al-insi wal jinni yuuhaa ba'duhum ilaa ba'din zukhrufal qawli ghuruuraa kon yàlla yabal iblis lu dul ci wetu ki mu yónni moo xam nit la moo xam jinne la kon dañ ne iblis waxtu woo jógee gën a takku gën a farlu jëm ci suñu borom moom te mu gën a takku gën a farlu ngir gàllankoor la waaye nag bokk na ci ay pexeem dëkkee nax nit ki te xam ne moom lay nax fépp foo xaaroo mu jaar na feneen <coughs> mu mel na ni li sëñ Ousmane wax toll nañ ci jamono joo xam ne ñi jàpp ne ñoo ëpp yar wala ñoo ëpp teggin ñoo gën a sàggan gën a ñàkk teggin daañu wax lu tax ndax teggin mi ngi tàmbalee ci foo mënoon a waxe benn baat bu baax ñàkk wax ba gën ñàkk teggin la àdd nag ko ci footoo wuñ ñi sutura keneen waaye nag bi ci gën a doy waar mooy ñàkk teggin nitu yàlla dafay mën law na te ñu ngi tàmbali Serigne Sam Serigne Abdoulaye wax na ko sànq su amee ay may yu bari tamit am na ci dox ni njàmbaaru boppam laxas na jàngi hmm. ngir nit ñi fii seet wax ji du gudd ndax dafa guddi waaye kon dañ koy tënk rek di xamal ni ñàkk teggin Serigne Sam ak ñàkk teggin Serigne Touba ci leen toll ci nekkul loolu ci ñi nga xam ne sax jàpp nañ ni ñoom ñooy wéyal liggéey bi ndax gis nañ fi nit koo xam ne su taxawoon amul kenn ci yéen ku nangu mel ne moom di wax. ay safaan ñuy dagg kasatu Sëñ Saam dagg ca baat yu leen neex di ko méngale mu mel ni Sëñ Saam daf tolloo ko wala ko faagaal dañ ko yemale koo xam ni nitu àdduna la wala boo ko wedd mag ñëpp nga xam ni lenn rek mooy yitteem fexe ba tappal suuf ci suñu borom yëkkati wax wax yoo xam ne tegoo fenn dara bu la nekk bu ci nga xool la neex ci kaso sëñ Sam di ko tontoo dafa mel na ni sëñ bi dafa laloon tissu bu ci nekk waxtaan ak dundu bu jël nga cay loolu laa beneen wala déet ñàkk teggin loolu ko sëñ Ablaye wax na ko moo siise moo njëkk a enregistré yi bi muy wax ne sëñ Abdou Khadre ko jëlee ànd na seen daam say seen moor gay bari na ci yoo xam ne ñoom ñëpp solo nañ ci dund gis cassette bu ñu enregistré ba pare mixé ko wax ca def ci numéro téléphone xam ne su fekkoon ne ñu jiitoon muy seen moor si wala mu daam say ko benn cassette lu dul sell lu dul mat benn bu ci nekk na am la ca dañuy ñaan nag képp koo xam ne def nga ko wala boo defaguloo nga bañ koo def te soo ko defoon tim nga bàyyi ko ndax mu wiraasa que sëñ Sam moomul ko jullit ñëpp ko bokk. c'est mm-hmm. dañu xalaat fii ak ñeent fukki at suñu kanam su continuer dootoo gis benn kaset boo amul numéro téléphone wala benn kaset boo xam ne amul waxi keneen te yaakaar naa doomu aadama fii ci jamono ji ñu toll mënul wax lu ñu war a mën a tëkkale wala méngale di sëñ Sam wax. wax yi ñuy wax yi yëpp fàttali rek la waaye ñu ngi koy wax ñu ñoo ko gën a xam ñëpp dañ cee barkeelu rek. kon ngir yàlla nañu bàyyi ñàkk teg yi fi mu ne kenn nekk ñu lu fekk mbindum Xaadimu Rasuul radiyallaahu anhu mu dem ca digg xaside ba mu dem di ca tagg imaamam yow kenn du ko def tax ñu ko def ci kas seen kon wax ji lu gudd loolu rek te la ñu amoon lu ñuy jàllale ndax ñàkk teg yi mu xadara yu mel nii ndax li ñu naan inda zikri saalihi tadullu rahma sëñ bi sànq bi ñuy tàmbali njaar den wax na fi ay seede yoo xam ne ci biiru mbooloo sëñ Sam day feeñ ci ñenn ñi am leen wax am leen am na ci kenn koo xam ne bu jógee loolu xuloo kii ko mu su fi président city